ñoom ñu sëriñ bi moo leen fi yabal sëñ Abdou Latif dafa wax ne dafa am bis boo xam ne at bu nekk dañ koy amal ndakaaru jam'iyatu tawdeex wa nas li injaazaati sëriñ Aysa jenn waaye nee na niñ koy defee mooy xeeñtu ay jaar-jaaram diggante bi mu tàbbee ci sëñ bi ba léegi liggéey yi mu liggéey ak gannaaw sëñ bi li mu liggéey ndax 1927 bi nga xamee ne sëriñ bi jóge na fi Cheikh Mouhamadoul Moustapha indi magi barsàq yu njaareem ajjuma ju nekk mu indim xar boole ko juróom fukki kilo yi ceeb ak dugub ñu di ko defar ba 47 mu jóge fi sëñ Baara jenn jël ko ñu topp mboor moom niñ koy defee nag moo di dundalaat xam-xam ñoom ci seen biir sëñ Issa fi mu féete woon ci xam-xam ak fi mu féete woon ci xitma ñu di ko defee nag mag ñi nga xam ne ñoom la nekkaloon ci sëriñ bi waxtu wi bu jotee muy journée boo xam ne ndakaaru lañ koy defee tudde ko menn mag sëñ Abdou Latif wax leen ne leen nag na ngeen dem ba ca sëriñ bi ndax moo moom yëfam ngeen leeral ko ko ba mu xam ni ngeen di doxee nee na jublu ci lu dul nag jàngal ñu fi bay liggéey ak xam-xam ñu feddalee ko seen laxasaay seen diggante ak sëñ Tuubaa nee nee na fekk na mu xamee ko noonu itam ah alhamdulilah nee na mi ngi leen di gën a sant bu baax a baax nee na nii rek la nee na nay dolli di wéy rek di di gën a jëm ca kaw rek nee na nii rek la li li yow la